jaga moom ambiance bi la gérer ñu seetaan. asalaamaaleykum jàkkaarloo asalaamaaleykum waa Sénégal. waaw ni ngeen ko gisee noonu. ambiance bi tey Sénégal dóor Cameroun 3 buts. ah Côte d'Ivoire ñëpp ñëpp Ivoiriens yi. ñëpp supporté Sénégal. match bi nag seetaan ngeen ko damay bàyyi ñi toog ci plateau bi. ñoom ñu décortiquer match bi. ambiance ale Casa laa leen jox noonu. ambiance Boucher Ketchup. ak Albouri ñoom ñu représenté la culture Sénégal am na ndam ñëpp kontaan Charles commentaire. magnifique <laughs> eh, namm nañ ko mais